élection euh, donc wàllum sécurité dafa nekk lu nga xam ne am na solo donc war nañ ko waxtaanee mm-hmm. dans la mesure où ku nekk da ngay bëgg gérer sa sécurité et mm-hmm. là je pense aux hommes politiques et tout tey kan moo war a gérer sécurité nit ak kan moo ko warut a def ok merci beaucoup Aïcha xam nga euh, sécurité dafa doon loo xam ne dafa sensible mm-hmm. parce que euh, non seulement le secteur dafa doon loo xam ni dañ ko war a assainir parce que y a trop de nervis boo dee xool parce que ci élection lañ jub si comme ni nga ko waxee. Mhm. parce que y a ce qu'on appelle des agences de sécurité privée donc ñi nga xam ni dañu am agrément état euh, ñooñu ñoo war a gérer sécurité. Mhm. donc euh, en dehors des forces de défense et de sécurité. parce que deux pàcc la boo dee xool dafa am boo xam si public mooy police gendarmerie. Mhm. mais comme man domaine bi ma ne muy euh, la sécurité privée dafa am ay text yoo xam ne ñoom ñoo ko régir mais. li nga xam ni moom mooy indi gàllankoor par rapport ak suñu liggéey y a trop de clandestins. Mm. xamoo kii yee kii parce que souvent da ngeen gis ay agents en uniforme. Ouais. mais ils pas la formation. bind si ginnaaw sécurité si ginnaaw sécurité. tey su ngeen defee ay investissement ngeen gëstu amul local amul une direction boo xam ni fa la bokk parce que léegi ku jug ubbi agence. surtout sama mbokk homme de tenue yi nga xam ni parce que je suis gendarme. Mm-hmm. donc euh, euh, ku ci jug da ngay dem rek ut ut sa. registre de commerce ni ne ah sans pour autant nga am agrément bi commencer exercer woo say booy xam nga former formation bi ngay wax euh, formation bi du jaar yoon kere ay uniforme def flocage acca léegi loolu nag moom moo tax affaire bi pëccëxoo ba nga xam ni xamoo kan moo war a mën a def sécurité ak kan moo ko warta mën a def parce que dafa laaj formation mhm. d'abord laaj nga am agrément parce que ki koy exercer dafa am agrément autorisation de l'état état bi reconnaître la mhm. ba pare ñu former la mu am tamit ay principe yoo xam ne yow moom ngay doxee mu am code de conduite boo xam ne moom ngay doxee. Mhm. loolu mooy moom moom mooy. yan yan principe par exemple. Euh, exemple dafa am loo xam ni il faut nga am éthique ak déontologie principe yi ñu demee mooy formation bi il faut nga nekk un ancien militaire d' abord. d' accord. soit un ancien militaire ou un civil bien formé la formation dañ lay former ci wàllu euh, garde rapproché bi ngay gis mooy. Euh, des agents de protection rapprochés. Mm -hmm. aussi il y a ce des agents événementiels en matière de sécurité loolu dañ la ci jàngal nan ngay mën a former euh, assurer la sécurité d'un événement c'est diamétralement opposé ak Euh, assurer la sécurité d'un VIP. Mhm. xam nga bokkuñu. ak ki nga xam ne tamit aussi moom mooy euh, un agent de proximité comme vigile bi nga xam ni moom moo nekk ci suuf. Mhm. waaw donc loolu il faut mu am ce qu'on appelle jàngal la quest la sécurité les qualité d'un bon agent de sécurité et puis les consignes les consignes générales et les consignes particulières mm -hmm. cela veut dire que ni euh, les consignes générales ça incombe tout agent de sécurité consigne consigne particulière mooy particularité site bi agent bi nekk loolu boo ko xamul mënoo def sécurité bi tax ñuy wax muy sécurité de proximité